neexul ba neexul waaye seex Cheikh na Diallo ñàkk la am wóorul. Eh, dem leen dindi waaye te te defar kii nañ daal nappi soxna si présenté wul na nga tudd. ñaana fay. soxna ñaana mu mel ni fan yi da ngeen euh, euh, réeroon seen i mbokk ñu njort ne dañ leen a enlevé woon maanaam yóbbu leen mbir mi ndax mën nga ñoo nett lii fan yi li ngeen doon dund naka la demee. fan yi lañ doon dund metti woon na trop ndax depuis àjjuma ba léegi ba ñu kidnappé ba léegi jox ñu ñu lekk jox ñu ñu naan sonnoon noon loolu trop. fi lañ leen bon bon avant ñuy egg jimaajo lañ ñu woon lañ ñu woon. ay ban heure yooyu rek. Hmm. Hmm. ki ñu kidnappé ma wax dëgg yàlla xamee woon ko ndax dafa masque woon. Hmm. da euh, moom daa mel ni daloon doon dem jimaaja ndax yére alof la soloon après moom mu ne man jimaaja laa jëm. moo tax ñu ñu yéeg. waaw moom bi oto bi bi mu demee ba ci kanam moom dafa taxaw wàcc bi mu wàccee mu am lu mu jël ci loxo mi après ñu bi mu duggaatee ci oto bi nag xamaatuñ dara ci feneen moom gisaatuñ dara ba ñu egg fi mu ñu jëmee bi ñu eggee fi mu ñu jëmee ay timis yooyu ay gée yooyu lañ yeewu bi ñu yeewoo benn saaru kaaw lu mel ni saaru kàmb foofu lañu yeewoo ñun cinq personnes yépp bi ñu yeewoo boobu xiif nañ sonn. xamuñu lu ñu def jox ñu lekk jox ñu naan ñu yeew foofu bàyyi ñu fi dem seen yoon. maanaam dañ takkoon. dañoo takkoon suñ loxo yi ak suñ suñ bët yi. léegi bi ndax kenn kenn nit kese la wala ñu bëri la. ñun taxi bi moom kiy dawal kese moo ci nekk. taxi Mm-hmm. léegi bi ban àggee foofu ñu wàcc gisuñu fa kenn ñun seen comme saaru àll la comme ay sëncaan yooyu gisuñu fa kenn ñun kese ñoo fa nekkoon ci benn kaaw boobu. Mm-hmm. léegi bi kan moo ko maam Jaara moo ko mm-hmm. euh, ñoom téléphone bi ñun maam Jaara bi mu wuyu ñoom dañoo génnoon. suñu déggee ñoom ñoo ngi ñëw ñu coupé téléphone bi. léegi foofu est que amoon na ay jigéen wala ay góor kese la foo foofu amul woon ay jigéen de ñetti góor dong la ak ñun. Euh, euh, mel na ni maire it wax nañu ne da ngeen a nekkoon ci ndox nekk ci gàlloo ca loolu it loolu ci mën a leeral. nekkoon ci nañ ci saaru ndox ñoom daa mel ne dañ ñoo bëggoon a yóbbu feneen beneen dëkk. Mhm. léegi euh, lan ak lan ngeen fa jot a dund ci loo mën a nettali. wax dëgg yàlla dund nañ ndax boo toogee benn jour boo lekkul rek dafa metti xontumaa nga toog trois jours yoo lekkul naanoo rek loolu rek coono la te ñun en plus xamuñu loolu. ndax wax nañ leen lan moo tax ñu jàpp ñoom waxuñu ñu dara ndax seen làkk yi ñun dégguñu ko comme saaru làkk ñag yooyu ñun dégguñu làkk yooyu xamuñu dara ci ñoom li ñuy wax. léegi bi mu demee noonu yéen naka ngeen def ba rëcc. ñoom benn jour dañoo xëy bi ñëwee. sax maam jaar ñoom dañ koo séparé woon boolewuñu benn jour lan ñëw bi ñu xëyee ñëw ñun boole ñu ñun ñëpp daal ñuy tikki bi ñu tikkee ñoom ñu génn ci bunt bi taxaw foofu di waxtaan ñoom bi ñuy dem dañoo fàtte tëj affaire bi bunt bi dañ koo delloo noonu après si laa génn daan xool tëjuñu ko après ñu ma wax leen ñu daw. léegi boobaak léegi kon lekku leen bi ñu dawee ba yegg si Kër Massar lan dajeek benn xale bu jigéen ñu wax ko may ñu ñu woote ci la maam jaara woowee jëkkëram ji Malick Jabaay après ñu ne ko ñoo ngi fii dugalal ñu xaas ñoo bëgg a ñibbisi xale bu jigéen bi daan ñuy booleeg benn maire daan ne bi meer bu baax la boole ñoo moom foo ko ñu toog noonu après maire bi moo wax ñii dañ leen sàccoon avant loolu far benn policier dafa gisoon suñ photo xam ne suñ photo yi dañ ko dugaloon ci internet bi si la waa maire bi ñii ñan la mu ne ko ñii dee dañ leen sàccoon mu ne ñii laay wër daati woon maire bi seen photo après si la wooyee police police mbaaw après maire boobu moo jox lekk may ñu ndox ñu naan. lu mel noonu da ko da ngeen ko doon dégg ci Touba ndax jàppoon ngeen ne dina dem moom ñun xamuñu fenn mësuñoo génn fenn suñu dem dem jimaa jimaaja buñ demul jimaaja amuñu feneen fu ñu dem. sàcc yi la yàgg nañ koo dégg mais ñun dañoo yaakaar ne woon ñun duñ mas a sàcc ndax ñun fooguñu ko woon foofu mais xam nga loola bett man la noonu la demee. juróomi nit ci benn taxi ndax yomb na ñu dugaloon dañ dugal yan wala yan anam ngeen siy chargé ñun cinq personnes yi bi nu duggee oto bi xatoon na trop ndax dañoo tàncaloo woon daal presque. Euh, mu mel ni euh, mbir mi euh, am na yeneen xale yu nekk ci biir Sénégal rawatina tubaa tey boo leen doon jox message ci ku leen di wax kaay ñu yóbbaale leen wala ñu bàyyi xel jëf ju mel nii lan ngay wax sa moroom yi. Mm, sama yi maa leen di ñaan ngir ku leen wax kaay yóbbaale leen na ngeen bañ ndax ñu loolu kese moo ñu yóbbu te mënoon nañ faa sànq mënoon nañ ñoo rey mënoon nañ ñoo def dara wala ñu tëddee suñu rakk yi bu ëllëgee buñ amee jëkkër mooy loolu seen jëkkër du leen comprendre wala seen goro du leen comprendre. léegi yéen jot ngeen a ziyaare ba pare ñu door leen a yóbbu walla. Hmm? ziyaare ngeen ba pare. ñun avant ñuy ziyaare ba toom ziyaaree gu noonu. ñun dañoo xëy bi ñu ndekkee ba pare lan dem jumaa ja. sama baay salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. ñu ngi leen di fay fay gi gën a màgg ci fay yi. di leen siyaare siyaare bi gën a màgg ci siyaare yi man ndongali Baara Ndiaye ndongal guy mbind lañ may wooye ñi ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di bala ñëpp ak di leen balaax di waa xale yi de maay seen ndey maay seen baay maay seen maam maay seen nijaay maay seen lépp. mel ni tey ñibbisiwaat nañ ci seen waaw sa borom mi dogal dogal na ñibbisiwaat nañ ci loxoy seeni waajur tey ñu ngi ciy sant yàlla bu wéra a wér a di ci sargal bokki jullit yi ak bokki taalibe yi di sargal bokki dëkkandoo yi ak yéen préf bi nga xam ne. yéen a ngi sol seen dàll lu yëngu ngeen ne ca da ci def ak leeral goo xam ne nit ñi danañ ca mën a sukkandiku ba xam li ñuy def lu mu doon. bu loolu jàllee ñu ngi sant administration bi parce que li tàmbalee police gendarmerie ba dig lépp kenn ku nekk li la ci war def nga ko ci taxaw nga ci taxawaay bi nga ci war a taxaw ba lim ba nii mu demee mu demee ni ñu ngi sant itam euh, bokki dëkkandoo ak bokki jullit ak bokki taalibe yi di ñaan sa borom yàlla defal leen jàmm defal nu ko. Eh, li ci jëkk nag mooy noonu dañuy doon dan di ay jullit di ay bi lépp lu dikk suñu kaw dañ koy jàppee nattub suñu borom nga xam ne yàlla mooy dogal te coobaram rek lay lay dogale kon lépp delloo nañ ko ci yàlla ñu ngi sant tey gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu nii lii dab na seen njaboot te ëllëg mën na dal geneen njaboot yow en tant que père de famille ngeen dund li fan yi yëpp lan ngay conseiller euh, ñi yore njaboot yi euh, ngir ñu gën a bàyyi xel jëf ju mel nii waaw loolu liñ ci wax rek ñu dollee góorgóorlu xam naa njaba borom kër yi sax ñu ngi góorgóorlu luñ mën waaye ñu dolli ko rek ndax euh, li xale bi waxoon léegi loola bett man la li mbetteel rek ndax xale yi xamuñu fenn fudul kër gi duñ dem fenn duñ dem grand place duñ dem marché duñ dem euh, fenn duñ fa dem daal buñ génnee kër gi daal dañoo dem marché duggi dellu si ci kër gi wala ñu dem jumaa ja siyaare yi daanaka tànk bu gàtt ak euh, ñàkk dox ci jamono moo tax ñu mën leen a naxe nii ñu leen naxe ndax ñoom xamuñu dara lu mooy seen seen kanam waajur yi rek kon ñi ngi dénk ñëpp ñu ja góorgóorlu ci njaboot gi te sàmm leen te saytu leen te sama borom mi maye mu may nu euh, nu man leen saytu te mu jàppale nu ci bu yu mel ni mën a gàtt ñi ngi dénk ñëpp daal ñu góorgóorlu ci njaboot gi ndax njaboot moom ku ko yàlla dénk ko ne am na war-war bu la ca war boo xam ni suñu borom dana la ko laaj bu ëllëgee kon nañ góorgóorlu gi njaboot gi ñu ngi sant. mu mel ni njaboot gi diggante waajur yi la ak ñi nga xam ne ni ñoo de ngóor gi yor kaaraange gi. Touba jamono yi ñàkk kaaraange gi fës fi yow nga dëkk tuubaa li dal ci sa kaw lan ngay wax ci côté boobu ñàkk kaaraange gi jamono yi. waa loolu moom yaatu na yaatu na trop trop trop trop trop trop mu mel ni dafay am loo xam ne boo ci duggee day mel ni wàllu ñaxtu wala kii mais fekk loolu amut dafay tollu ab dëkk daal boo ca dëkkee wala réew boo ca dëkkee am réew boo ca dëkkee am na lu la ca war waaye am na luñ la ca warlul am réew boo ca dëkkee wala dëkk boo ca dëkkee am na lu la ca war waaye am na lu ñu la ca warlu loolu nag li ci manqué mooy dëgg la ñi ne ci ñi nga xam ne indi nañ leen ci dëkk bi ñu di ay ay ay ay takk dara jumbulee xay na ñi ngi def liñ man mais li dafa bari parce que dëkk bi dafa lëndam dafa lëndam këriis lënd lëndam gi foo ko takk weesu na ko ñaareel bi it wax dëgg bu doon suñ sago ñi nga xam ne ñoo dox suñ digganteeg ak administration bi lu mel ni bu amee ñu gis fi ndaw wala ñu dégg fi seen kàddu loolu am na ci solo sànq rek maa ko wax ma ne gone man de euh, Abdoulaye ko dégguma ko fi dégguma ndawam te jàppoon naa ne dëkk bi comme moom la ci sëriñ bi teg muy ndawal sëriñ bi lu mel ni su amee war na faa teew mbaa mu yeble fa xëy na nag ñàkk jotam la wala xat-xati jamono waaye loolu daal bokk na ci li nga xam ne euh, noo koy ñaan daal fu lu mel ni yëngu daal mu teew fa mbaa ndawam. kon daal bu la déggee kilif euh, aada yi nekk ci dëkk bi bi affaire bi amee léegi kenn ñëw fi di leen masawu coono. non non gisuma fi kenn. waaw kenn laa fi gisut chef de moom chef de village sëñ bi moom du administration sëñ bee ko fi teg waaw maanaam administration bi moom xam naa diggante police gendarmerie daal lépp lu leen war moom def nañ ko moom police ak gendarmerie lépp lu leen ci war def nañ ko ci waaye nag foofu la yam de moom